voilà man la berger man la Cheikh bergerie Touba Sahadatou croisement Sali. c'est mon numéro de téléphone 634 89 86 voilà Je suis chargé extérieur en même temps du coordinateur foiru 2000 2020 2000 2009 édition foire je suis le coordinateur voilà kii mooy aram kii mooy aram nekk xar boo xam ni ndeyam si man la juddoo papaam it si man la juddoo ma croisé ko ba mu mel ni tey voilà bon mi ngi si six six portant ah, mag la ma minimum mi ngi sept voilà te musul jur benn macha allah non non ñaar rek musul jur benn triplé na ñaari yoon waaye macha allah voilà.

trois ans macha allah trois ans ah yow mom da nga nek éleveur bo xam ne da ngay téye xar. damay téye xar waaw non man man naa téye xar cinq ans six ans. ok waaw man xar mom vraiment gawul génn sama sama sama loxo da ok waaw. élevage bi nak kañ nga nek yow. waaw sama première exposition 2006 le euh 2006 la Thiès. 2006 Thiès 2006. ok waaw bon Thiès la dëkk mais nag bu euh, mel ni docteur Diallo ak ñooñu. dama jël seen première foire bi ñu organisé. ci laa ñëw dem bu dugg dem jël samay xaru Touba Toul ñëw dugal ñaan mais xanaa da ngaa def xar yu bon nii la ma ne man damay foire ci laa commencé foire jënd fa benn xar ci benn police bi nekkoon foofu ku doon wax euh, kii Ngom Tidiane ak Tidiane Ngom susam laa démarré waaw ah, euh, gis nga kii di ñëw moom la. waaw kii mooy pen la kii mooy awa buuru këram. Ah, moom laa tuddee sama soxna. te awa nga tuddee voilà bële ma ñu ko sama ñaareel laa tuddee. macha allah. ñetteel bi nag moom mi ngi ne ñëw su kay ndax dafa xaw a diis moo tax ma bàyyi ko fa daal ah, moo nekk si bâche bi ne la su kay ne voilà voilà bi si topp mooy Penda beneen bi bu mag bi mooy Ndindi beneen bi mooy Mama Abi sama góor laa ko tuddee bi mooy Umu Umu Baye Mor euh, moo mayoon tëb ci jasaaka mu am doom mu tuddee ka jabaram jabar Baye Mor jabar mooy waaw kii mooy Penda Penda am am na deux ans deux ans waaw moom bete bete la ndax ñaari doom maxtu ko jur. ah ok mi ngi si troisième porte yow xanaa a jox xar muy tëbu. waaw man du ma tee xar. waaw waaw looloo baax. man ni mu ndikkee rek. ni ko yàlla bindee rek laa koy bàyyee. très ndax suñu borom moo nu gën a xam. waaw li gën si xar bi. bu ko defee rek nangu ko. très bien man noonu lay doxee daal am na solo. Ah, yow mbote bee mbote bee tërëg yaa am kan la. waaw kii kii mooy umu. Je fi am dom léegi machallah ah macha gars euh, président man may ndax ben fi am dom ah. <laughs> mais dama joom sama calcul. Ah, dama faté 31 euh, jours waaw. le euh, après foire deux jours après après foire En voilà ndax dafa don dafa don concours. ok mais dafa am ah grand non non Un ah, espoir. espoir. machallah allah mi ngi douze mois. Qui, qui ko ndax day tax waa sama sama président bañ ma amaan waaw ndax damay bañ ma amaan ma ndax xar warta am doom ci foire bi ah, waaw dañ koy interdit man bu ma juumee damay nangu ma amaan na itam damay fay ndax ci laa bokk voilà voilà non macha allah moom ñaata mois la am moom. moom mi ngi si douze mois. ok douze mois douze mois xale la. premier porté. man du ma dee xar. kon ça veut dire mois nga joxe. septième mois la tëbb man du ma tee xaar. non loolu dafa am ni mu ñëwee rek laa koy bàyyee. xoolal euh, na ñoo xam mais góor gi ngeen 6 7 mois la xar bi. non non mi ngi nii premier bordem. parce que 12 mois moitié moitié allah macha allah. moitié boo xam ni dafa gudd léegi léegi léegi ñu fay si million léegi léegi. léegi léegi man leen la euh, lu fay déggul kenn du ko jaay. kenn du ko jaay. waaw kii di ñëw nag moom laa wooyee bek bek beg laa ko tuddee ndax dafa am bek bek lèvre moo bek bi gémmiñ ñi dafa xaw a dafa am bek de lèvre moo tax mu tuddee ko bek quoi moom mook madame Cissé ñoo bokk papa bu Latir Cissé moo tax mu mel nii mu mel déjà mi ngi si premier portem moom it gis nga ni mu toll nii premier portem 13 mois waaw macha allah ah, voilà gis nga nga ni ci man lañ juddoo. très ah, man yaakaar naa sama élevage moo ne compté am naa la man 27 xar ñaar ñaar ñaar ñu ma jënd ñoo fa nekk. ñaar yoo jënd waaw maa ngi 27 xar. ndax foire bi 4 box laa jëloon mais 4 box yi comme foire dafa dem ba dépassé ñu ñu box organisation yi ñu joxe suñuy box pour mën a toog xaar daal ndax boo organisé bu bis toll fii da ngay nangu mu ñàkk day am nga nangoo ñu nangoo box yi ñu njëkk a ñàkk moo tax maag président exposé fii ndax fi nekkul woon sax box mais dana amul woon box amuñu woon box te dana war a jege bunt bi moo tax ñu def box bi fii te macha allah box bi ndax am na demee suba sax dañ koy jaay ndax am na benn euh, film bu war a ñëw nee bu moom fii la bëgg exposé bu nu fayee lu nu ko ñu génn xar yi jox ko laa du am dara moo nu gën a y' a aucun problème voilà jërëjëf ma delloo xar yi kër gi toog ah mais yow yow xalaat na. jërëjëf ma keneen grand. waaw kii di nag moom euh, kii nag mooy euh, doomu latir la. malbi malbi Malbi. Malbi. Malbi. Malbi. Malbi. Malbi. ndindi ndax man Serigne Fallou Malbi. sama Serigne. Malbi. Cheikh Malbi. Malbi. bu Serigne Fallou. Malbi. sama Malbi. kon Malbi. lu Malbi. am rek war Malbi. Malbi. Malbi. Serigne Fallou. Malbi. tax lu mu am daal dama ko siy laaxaale ndax Serigne Fallou moom suukar la. bu nu booleeg lem suukar la bu ko booleeg lem moo tax mu ko ndindi. le 15 8 bis ni ki tey lay am 2 ans. 15 mois kii doomu latiir la ak benn doomu Cheikh Diop. Latir bu El Hadj Ndiaye Latir bu El Hadj Ndiaye. macha allah ma ngoog waaw. tey jii tey tey la am 2 moo jur mën bi juddu tey moo jur mën a bi juddu tey gis nga. macha allah voilà. ko cat nag da ko toppoon dafa yéex a tëbbu. Uh-huh. da doon tëb muy répété lu bari mais macha allah léegi. tëb na quatre xar sama kër. Uh-huh. am naa si ñaari doom. tey benn bi confirmation baa ngi nii. tey fii laa amee ci foir bi. macha allah jërëjëf. ah kon euh, moom euh, euh, sama jabaar Latir Cissé moo ma ko jox. Ah, la jox jox ndax moo bi muy am 20 jours. 20 jours mu ne ma tonton jëlal bi yóbbu kër ga yaakaar naa am naa si moom yaakaar boobu ba léegi nag aw ma si réccu daal oh, voilà macha allah waaw. jeex na wala. moom benn doomu. Ousra moo jur. Bouchra moo am doom euh, benn doomu Laalum benn doomu Saalum Saalum bu jigéen ñu jaay ko sama benn xarit bu yor benn daara alxuraan maal bi si moom la nekk mais maal bi li muy def si doom kenn xam lu macha allah mi onze la bi la am deux mois. Mm. Euh, message may joxe rek mooy maa ngi gërëm waa Mbour yëpp di leen sant di yàlla jàmm ak xéewal xam ne lii ñu organisé yéen ak ñun ñoo ko bokk donc na rafet rek ndax àdduna am solo te dara warta ñaaw te àdduna du sukar waaye nag euh, dañ siy dolli leb ñun waaw jërëjëf ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm sama numéro téléphone 634 89 86 merci beaucoup la waa Ladoumène Mbour jërëjëf yàlla na yàlla dool sutura xéewal mi ngi nekk croisement